mu may ñu ñu yendu ci jàmm ñu ngi ànd ak yéen ci ana wa man ak weeru koor tey ñuy jël sunniyatu taajilul fitri li saimi sunna gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na ko julli di te mooy teel dog mbokk yi sunu yonent alayhi salaatu wasalaam dafa sunnaal ci jullit bi woor muy teela a waaye teela a goo xam ne tataxaqaqu gurubi sams dana ko wóor ne leer na ko ne jant bi sona jëlee nañ ci sahl ibnu saad asaaidi radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalul fitra kenn ci àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku du sahl moom sahl nee na sunu yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ne nit ñi day duñu deñ di nekk ci jàmm may jullit yi duñu dem di nekk ci jàmm feek ñoo ngi teel a dog ndeke kon teel a dog sunna la ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne maana alxadiis annahu laa yazaalu amrul umma muntaziman wa huwa bi xayrin maa daamu muxaafisiina ala haadihi sunna sunu yonent nee na xeet wi duñu dañ di nekk ci jàmm feek ñoo ngi respecté sunna bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi leen lu tax ndax daf leen a wuuteloo ak ahlul kitaab ndax ñoom bu ñu wooree dañuy dem ba guddi suñu yonent bi alayhi wassalaam moom ñaari mbir daf ko yitteloon mooy teel dog yéex xëdd loolu mooy sunna yonent bi alayhi wassalaam mbokk jullit yi jëlee nañ ci abdullah ibnu masud radiallahu anhu mu ne annahu kaana yuajjilu l iftaar wa yuajjilu rasulullahi sallallahu alayhi yasna abdullah ibnu masud nee na yonente alayhi salaatu wassalaam da daan julli nee na loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la saxaaba yi roye woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu ndey lan lañu ñu sunnaal ci kuy dog mu dogee ko kiy dog soo amee tàndarma bu tooy mu dogee ko baax na su amee bu wow baax na su amul ñaar yooyu benn ci ñaar yooyu mu daldi doge ndox noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe tàndarma bu tooy benn wala ñett wala juróom wala juróom-ñaar li ngay doge su fekkee tàndarma la fexeel mu tool ndax inna allaha witrun yuhibbul witra yàlla dafa tool bëgg na lu tool mbokk jullit yi sooy dog bëgg nañ nga wax nga ñaan zahaba zamau wabtalati l uruqu wa thabata al ajru inchaa allah allahuma laka sumt wa ala risqika aftart faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu ñaan gu mujj googu nag am na ñuy wax bi wérut waaye comme ñaan la te ci fadailul amal la manees na kaa jëfee manees na kaa jëfe ndax ci ngëneelu jëf yi la ñaan la doomu ndey kon teel dog sooy dog nga doge tàndarma soo ko amul nga doge ndox waaye lan mooy xikma min taajilil fitra lan mooy xikma ci jullit bi di teel a dog lu tax ñu yoonal ko pour mu teel a dog ba ca jiitu mooy almubaadara li taatillah moom moom mi dog gaawantu gi mu gaawantu ci topp gi mu topp yàlla da doon topp yàlla heure bi mu ko doon topp waxtu wi jeex na ñu ne ko dogal mu dog allahu yàkkamti gi mu yàkkamti noonu ba dog ndax digg ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu kooku def ci am tiyaaba ñaareel bi mooy tarkul xul bàyyi ëppal fi diin bi ziyaada dañ laa wutal heure ne la heure bi ngay tàmbali heure bi ngay dog kon bul dem ba gée bul dem ba guddi bul dem di ko laye ñun nangam ñun lii man jàmbaar laa déedéet dañ la ne fii ngay yem yemal foofu bul yokk bul wàññi ñetteel mooy al axzu bi ruxsatillaahi yàlla moo la may yombal yàlla moo la yolomal yolal malal sa bopp yonent bi nee na yàlla su mayee nit na nit ki am teggin jël jëlli ko yàlla may yàlla moo nu may nuy woor fajar timis nu dog bu kenn ëppal bu kenn wàññi yàlla may gim la may dañ ci am tiyaaba ñeenteel mooy tarkuta tashabbuhi bi ahlil kitaab yow day bàyyi nga nuroo ak ahlul kitaab ndax ahlul kitaab ñoom dañuy yéexa dog dañuy teel a xëdd ñun nag dañuy yéexe xëdd teel a dog yonent bi nee na ñoom wuute gi nga wuuteek ñoom sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu def la ci bindel tiyaaba juróomeel annahu alaama ala anna al umma bi xayrin bi istimsaakiha bi sunnati nabiyiha sallallahu alayhi wa day wane ne xeet wii di xeetu lislaam di xeetu yonent yàlla muhammad ñu ngi ci yiw ndax ba tey ñu ngi téye ci seen sunna yonent li leen yonent bi jàngaloon lam leen indiloon ñu ngi ci jàpp bàyyi wuñu ko lan leen indil mooy teel a dog yéexi xëdd juróom benneel annahu arfaqu bi i mbokk jullit yi teel a dog day indi yombatal day indi lewetal ci ab jullit lu tax ndax amaana buñ ko waxoon continuer ba minuit walla ba onze heures wala ba dix heures dana loof dana sonn dana am ay jafe-jafe dana am ay metit kon suñ ko nee timis bu jotee nanga dog yombutal googu jullit bi am ci mu yëg ne diine lislaam diine bu yomb la kon juróom-ñaari mbir yaa ngi noonu ci xikma guy wane ne sunu diine muy diine lislaam du diine bu jafe diine bu yomb la gis ngeen indi na sunna boo xam ne danga ciy roye yonent bi alayhi salaatu sunu borom subhaanahu di la bindal ay tiyaaba kon xam nañ ne dañoo war a teel a dog suñuy dog xam nañ lan lañuy dogee xam nañ ban heure la ñuy dog suñuy dog lan la ñuy ñaan waaye lan moo tax ñu yoonal ci ñun juróom-ñaari mbir yu tomb yooyu nga xam ne moom lañ yoonal ci ñun pour suñu dogee ñu mën a am tiyaaba yu rëy yooyu ñu mën a màng yiwu rëy woowu nga xam ne moom moo nekk ci teel dog doomu ndey yi mbokki jullit yi dal su tey bàngook noo ngi ñaan sunu boroom jala jalaalu wa azza boroom màgg gi borom kun fayakun mu yéwénal seeni mbir mu taxawu leen mu suturaal leen sàmm leen ba njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñu mun koo jël mbokk yi nañ leen góorgóorlu ci darsi di jël njàngale yonent bi yàlla yónniwul kenn ci ñun kudul yonent bi lépp loo def te defewoo ko nu ko yonent bi defewul woon yàlla du ko jël man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp ku jël lu yonent bi indiwul loon yàlla dala koy bàyyee nga jaamu yàlla nag ba ëllëg yowmal xiyaam yàlla ne la duma ko jël pertement weesuwu ko ñoo ngi jéggalu kàddu yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla fay leen yiw fi dunia wal axira